non géej li mu def amul ndax géej dafa fekkoon lu réer mu gindi lool sama biir wax damay faral di wax ne soo réeree ci dunyaa diglul ki xam soo boolee diglu ak xool da nga ay nelaw ndax ñii ngi naan kaar ñii ne doyul am pepp ma tax di bay na du jalo géej nag daa fekkoon lu réer mu gindi ko géej bokk na ci ndaanaan yi nga xam ne njaareem papaam laa doon àndal papam doonoon suñu baay ñun ñëpp papam teete ñu ñun ñëpp papam yar ñu ñun ñëpp papam jël ma def ma comme man ma doon ab taawam kon géej bu wëlbati ko jël bis géej gi saf tàmbar mosoor mu tëgg sabar tuddewu ko boromi sabar tuddewu ko boromi alal Cheikh ma man dafa booy taalibe seen Fallou bi mu tuddee ma bis bi man ak ñi nga xam ne man ñoom laay àndal muy guddi muy bëccëg mooy sama gaaru bi nga xam ne mooy gaaru su Baba Gaye ndax aw lu ñoom nga fekk ma ba sama biir garage lu ma def lu kontaan yi te samedi ak jàmm di nga xam ne son noir yi ñoom ñoo xewle ñoo lay wuy si incha allah man bu may ñëw foog naa ne benn taxi du dew njaarim ndax man maa moom taxi man mii maay borom taxi maay xëy ci booli gont ci taxi te li may xëyee ci boole li ma tax ma di ci tiitoro ma di ci sago taxi maani la te taxi maani la am da ma fekk ma génn mais damaa dagg fa ma ne woon ndax géej du ma ne jaral na ma ndax ëppal na ma waaye man garage bii laa am taxi maan yi laa am taxi njaaram laa am di nga gis leneen lu dul tafaaboon géej li ma la wax rek bàyyi ajuma ñaay suñu bàyyi lépp moom la moom mooy géej gi xam nga daa tudde géej géej mais bàyyi ajuma mooy géej ndax ba may door ànduma ak papa ànduma ak nijaay ànduma mag man damaa wéetoon ci aar man aw ma rek buy tëgg aw ma mag buy tëgg aw ma bàyyi buy tëgg aw ma nijaay buy tëgg man dafaa joodo tey bi may door man man joodo ma fa teewoon nag lool fa tey doon ab sëpp la ko bënd ne ca biir ma fekk sama papa ma njaay nekk ci diggi ndëndam ci njaarim moo ay naa tàngoom ca kum ci bokkaloon programme ku ne soo ñëwee yërndu ko xam ne ajuma njaay fa ne da nga yëglu wala doo dugg kon géej bu wëlbati koo jël bis romb Grand Diourbel romb Ndaayaan romb Pikine romb Kër Cheikh romb njaaram gépp na ma Tapha Bool yow taximaan bi Tapha Bool ak taximaan man lu ma wax sax taximaan yi laa wax ndax taximaan laa am ñoom ñooy sama tiitër ñooy sama ngànnaay ñooy sama lépp samedi si kàttanu yàlla géej bu dee togg na togg lu doy bu du togg bu du na xàll ab terrain su bu doonut ab terrain na xàll a esa dana gis lu ko yéem ci kàttanu yàlla ni ma koy tuddee mooy gaañ a nga ñaa dururur ka am xarma kamarum daji dajangalee duuti karkata kepp mm-hmm. katama ñamaañu keppal ma ko set di ko dàq moom moo ñëw mu neex kon te léegi nii bés bii dama naan ko tafaa tudde wuñu la dañu ko jox li mu moom ki ñuy tudde mooy ki moomul mais bés bi ñu ko jox bésam na moom moo ko moom parce que la nekk monument la boo xamante ne nii tey lebal lu nekk population Diourbel guddi gu nekk am na ko Diourbel tàkkusaan bu nekk am na ko Njaaréem kon loolu warul réer fàtte fàtte lu moo fi bëgg a nekk rek mhm. mais fàtte mënul nekk mhm. moo tax loolu sincèrement mënuñu ko seetaan te warul mën a nekk te du yem fii mhm. insha allahu rabi day premier pas bi ne ren dama koy tuddee guddi gi déwén dama koy sargal ci aar insha allahu rabi andan def ci théâtre de bi suñu première année entre deux mille francs lañ def deuxième année bi trois mille francs lañ def te maasàllaa ñi fa teew ñëpp xam nañ ne dañ doon entre kon ren bu ñu ko jëlee def ko en plein air juste pour bëgg a woon waa Njaareem jépp ne leen carrément àdduna dara amu fi solo lu dul rafetal parce que nag euh, lépp lu luy teranga bëte ko moom mais lépp loo fi gis muy lu rafet bañ di ko naw xelafe daal dëgg la juróomi at maa ko tegal di ko gagné fes nag grand prix maa ko gagné dem Ndar fes nag maa finaalu Nescafé kon kii bu demee ba xam loolu xam na njaaram dañuy fàtti fàttelu te fàtti xaju fi te nag euh, Cheikh Mbacke bool bi néew na tuuti na lool waaye dafa sanc ay daara bool bi néew na tuuti na waaye dafa sanc ay daara dadi aarub léegi làmb la ku mënut di dem ca lamba ji di yor ay saaku bokkoo ci làmb ji moo tax nag ba ma xamee ne looloo am ci ba ji léegi. ma wéet ak sama taxi ànd ak samay mbokk. di ci raay di raay fee. <laughs> Cheikh yow daal li ma bëgg a wax ah. maa ngi sant nag bu baax sama waa garas. Ah. di sant suñu njiit suñu papa. Baba Gaye di ko ñaanal yàlla guddal fanam ak wér. ndax suñu baay la suñu mag la suñu lépp la. suñu maam la moom Baba Gaye moo ñu tiit jiite moo ñu yar. Ah. di ci teg suñu mag jibi mii nga xam ne. mooy rakki baaba di lépp baaba. Hmm. loolu laa war na njëkkee. Hmm. mais dama koy tëjee. Hmm. géej njaay nag amu lu ma koy wax. dama ma koy wax mooy dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat bañ fekke ko samedi ci kàttanu yàlla yàlla def ci jàmm yàlla may ñu bañ cee tawagum bu nu defee ba ci suba sa dimanche bu ko neexee nañ doot bëgg <laughs> sa bopp ak bëgg say nawle jëmi ji moo taawu baayam jëmi ji moo sagal baayam jëmm ji moo tax aaru baayam réerul parce que baayam mag la def na ci njaarim lu ne ba doon mag baayam keroog ba mu taxawee verdir kii anniversaire bi mu njëkk def mel na man kullu man artiste maa ci dem bu keneen ana ba del si maa ci dem ana ba del si maa dem mu def ko verdir maa ci dem tay la neex ku ne ñëw génjaay macam da jàmm ci kàttu yàlla ak yoon noonu rëy ni maa ngi lay woo ci barke Sëñ di gërëm di gërëm képp kuy seetaan émission bi. ay Fall dégg ngeen di gërëm waa garage bi nga a ngi mën a gërëm parce que man ak yéen ñoo bokk li nga gi. ngi jëf ñu dem